asalaamaaleykum gars yi asalaamaaleykum téléspectateur ñuy suivre Zambro TV comme ni ñu defee gars yi ah di leen toppal champion yi ndaanaan yi tey nag ñu ngi à domicile ah sama dëkk plus précisément Palma Ngouye Ngouloumane toogal ak benn champion boo xam ne kenn dootu ko présenté ci lam ah muy Asprilla wala nga ne ku ko xamul aussi dégg nga turam moom lañ sees si fas yéene waxtaan ak moom ci carrière am ak ci affaire yu bëri parce que boo leen xoolee gars yi ñu bëri dañuy laaj Astou Dia ci lan la ne ci lan la ne ndax looloo tax tey man bu ñëw sees si ko fas yéene waxtaan ak moom ah waxtaan yu bëri mais avant tout dama maa ngi bëgg sama caméraman ah benn booy moo nekk ci caméra bi di bëggee gars yi ñuy jàppale aussi ah Abdou Thior borom Marfafa ko depuis Espagne ah Papa Ali Gallo ñoom Samba Ziga ñoom Ousmane Sow yeneen gars yëpp ñu ngi si jàpp yëpp maa ngi leen di béy di nax gars aussi di leen di abonné wu di partagé mais laataa ñuy solu ci waxtaan bi dañuy bàyyi mbër ah mu nuyoo téléspectateur ñu koy suivre à travers Zambro TV El Monde Entier dañuy jox kàddu ci mbër euh, nuyu nañ la. waaw Zambro maa ngi lay fay bu baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. di la gërëm bu baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. yaa ngi toog ak ndaanaan champion. Mm-hmm. waaw def lépp si làmb ko waaw. Euh, loolu am na solo ginnaaw bi nga nuyoo ba pare ñu bëri euh, Asperia lañ xam mais yaakaar naa sa tur sa tur surtout dëgg Léopold la mais laataa ñuy sa Asperia bi euh, bi joueur bu mag la quoi dëkk Colombie. Mm-hmm. waaw moo andi Asperia waaw moo andi bi boobu maa ngi def ngëwal si football bi quoi. Mm-hmm. waaw sama génération. Mm-hmm. waaw palmarès fii. waaw amul lu ma deful. waaw fii ba Joal fan Fadiouth. waaw bu ma jàngee Joal. waaw kon Asperia la avant muy dugg ci làmb ji. Euh, da doon football da doon yëngu ci football looloo tax euh, ñu tuddee ko askan wi. walla yàlla mu ma nattu rek waaye football laa gënoon a gëm kaa lamb ko mhm. waaw mhm. xam nga rek noonu la demee quoi. Mhm. waaw. nga ne nga nekkoon dugg ci lamb ji Asfixiya laataa ngay dugg ci lamb ji est-ce que Asfixiya jaar na école walla Asfixiya amoon na métier avant mu dugg ci lamb ji. non jaar naa école. dem ba benn instant sama rakk yi jot ma si école. Mhm. ñu bokk école ñu bokk classe. Mhm. ma bàyyi jàng. Mhm. waaw noonu la demee quoi. fooru ma woon si nag. parce que xam nga rek. jàng bi moom hmm, football bi moom ma ko gënaloon quoi. waaw loolu la quoi. mais bi nga nekkee ci école bi ban moment ban classe nga bàyyi jàng. Euh, maa ngi bàyyi CM2 quoi. CM2 waaw CM2 laa waroon a def après ma bàyyi. ma bàyyi waaw daanaka CM1 laa yem quoi. CM1 nga bàyyi la nga bàyyi jàng dugg ci métier wala. maa da nga dem ci làmb ji. waaw dama bàyyi la dama bàyyi jàng. Mhm. Euh, ñëw boobu euh, motagul pour ñu bëre quoi. Mhm. yaa ngi may dégg bu baax. Mhm. waaw ñu toog quelque deux ans. ñu seetaan suñu yi comme ñoom Souleymane. Euh, nijaayu benn boy. ñuy bëre ñu leen di topp quoi loolu si làmb ak ñoom Tamsir ak ñoom Bisa buñ ko Bisa dëkk Mbin Jibaan yaa ngi may dégg bu baax waaw ñuy roye si ñoom quoi ba dugg si làmb waaw loolu moom ma dugal si làmb loolu am na solo mais laataa loolu euh, est-ce que euh, Asfiya jaarul comme ci ay mbapat ay potu meew xam wala ay saaku ceeb wala ay ngajo loolu leen tombal seen génération. waaw bëri naa mbapat fii boobu jijak euh, selbe ka benn campement moo doon tëgg fii ay mbapat saaku ceeb. Mhm. waaw ñu koy bëre quoi mhm. waaw. Mhm. mel bi ngay bëgg mbapat est ce que instant bobu da di jël wala da di finalu waaw yalla mo mëna tuun mbapat yoyu manam dama doon bëri ay bor quoi mhm. say buma gënné mbapat rek ma tassé ko xamné damay fay bor mhm. non la démé quoi mhm. waaw ñun def mbapat yi mais bu légui lolu amna solo parce que mbapat yaakaar nga mbëg bu ne jàng fofu ñu mbëg di bëg fofu lañu jàngé lamb Mhm. Wah, loolu moom dëgg la moom parce que ñun tamit foofu lañ jàngee làmb mu koy bëree. Mhm. waaw jógee foofu nag soog a dugg si biir dëkk yi mhm. si biir àll bi jéeri bi ak euh, ndundale lu ñuy waxee ndundale quoi. waaw. mais laataa nga laataa ñu ñëw ci carrière bi dëggante bi ngay jëm làmb fii nii palma ngay ñan nga bokkaloon Sénégal jam lam ñoo doon jëm làmb fii nii nekk ay palma surtout palma ngay ngoromaan fii nii ci nga xam ne euh, ay mbëg par ñu nga tombé won délégation fi ni wa bu nekké ngunuman fi ñu nak ñom Jean mm, Arfan Arfan Njanko yalla nako yalla sama xat bu baax di entraîner école nu di ngonal ben di ngonal euh, ben secteur quoi euh, di defandoo lepp say bu dem di ñew waaw ñepp ñoo ñoom Jean ñoom tuutu euh, ñoom Souley nag dañ leen dab si làmb ñooñu jiitu waaw la demee. loolu am na solo sax depuis carrière mais euh, Asperia ban moment la jël euh, décision ferme pour dugg ci làmb ji. man année. année bu nag maa ngi koy jéem a fàtte tuuti nag. Mm. waaw année bu ma jël décision ne dama war a bëri mm. fàtte naa ko nag. Mm. waaw mais bi nga bi nga jëlee décision pour bëri ban ban ban catégorie nga duggee Asfixian dafa doon xaw nga dugg wala poussière wala directement tànk wala directement poids waaw uppa euh, uppa uppa jël laa njëkkee quoi. waaw poussière quoi lu ñuy wax uppa jël. uppa jël boo nekkee séeréer uppa jël lañ koy wax quoi. Mm-hmm. bu nekkee olof. naka lañ poussière lañ koy wax quoi. Mm-hmm. waaw mm-hmm. foofu laa njëkkee. waaw foo foo ngeen. Euh, ma xool. Euh, palmarin Géej. Palmarin Géej waaw. Palmarin sama dëkk. Mhm. bërfasi porter mhm. waaw permanent gec waaw fofu lañ ko takkel ngëm ba waaw upa jël upa jël waaw est-ce que est-ce que ya mëna ñëw ci lambu jojju euh lambu jojju ma xol dem na ba de finale mhm. euh waaj bu ñuy wax ne xawma doutu pas moma gënë won par par bobu non non par tirage tirage lañ doon def quoi sandi fay waaw waaw wala wala wala wala non la démé won quoi mais bi nga ñëpp sa première lambu nga gënë quart de finale loolu noo ko dundee ak seen waa kër mais avant avant ñuy ñu dugg foofu mais est ce que bi ngay jëm làmb est ce que say say mbokk wala say waajur nangu woon nañ pour ma bëri. non nangu noonu pour ma parce que fii moom xam nga rek booy jéem dara maanaam foog nga ah, sa say say maam yi. Mm-hmm. parce que man sama maam moo ma yar quoi. Mm-hmm. waaw ndax ma doon tere may jéem a nëbbatu di dem di ñëw quoi. Mm-hmm. parfois bu may génn sax du ma gis. waaw waaw boobu sama papa mu ngi di jàngale foofu quoi. waaw dama doon yokk di dem di bëre. bu ñu xamee nag jël naa décision si nañ ma bàyyi. Mhm. waaw ma continuer. Mhm. waaw. Mhm. mais sa premier sortie Palmarin Nguédj bu ko jël nga dem ba kaa def naa li ñu xaq li nga ñëwee as ñoo dundee loolu. waaw xaw na ma métti tuuti quoi. parce que dem si làmb am yaakaar tamit ña ñàkk ko tamit xam nga day xaw a doy waar quoi. waxatuma nag sa supporter sa supporter yi mm. waaw ñu bëri foofu trop trop trop trop trop trop mm. parce que waa Palmarin ngéej moom dañu ma fonkoon quoi mm. ma bëri woon foofu ay supporter waaw bëri woon naa foofu ay adversaire comme ñoom Georges ñoom Lamine Mariama ñoom Girane quoi waaw ak ñoom dem si yàlla booya ñoo sama adversaire lañu waaw noonu la dem loolu am na solo mais as ban ban moment nga sentir na yow mi eh, waa nga doon mbër Euh, moment bu ma koy santiir bu ma jógee si année bu ma lay wax noonu. Mhm. laa sentir dama war a génn. Mhm. dugg si àll bi mhm. def ngewel waaw. waaw moment boobu daal nga sant war nga doon. wallaahi waaw. Mhm. moment boobu santiroon naa ko parce que dama doon respecté woon na entraînement yi. Mhm. waaw chaque cinq heures du matin yeewu naa dem entraîné ji. Mhm. meluma comme ñoom booy na booy. di nelaw ba ay. dix heures onze heures nga soog a jóg. waaw. waaw noonu la demee quoi. mais sa première saison boobu euh, ci ci Upper Jalil ñaata final nga am wala lew euh, amul woon final ci saison boobu. waaw euh, nu ma la ko mënee waxee maanaam aw ma woon final quoi. waaye dinaa doon dem ba quart de final ba demi final quoi ma génn waaw mm-hmm. waaw deuxième année balaa laa def euh, final ba jël ak euh, Youssou Ndour fii mm-hmm. si arène ngunumaan bi fii mm-hmm. waaw ñu bàyyi ko foofu ñu bëree lu mot quatre heures de temps waaw kenn mënul daan moromam boobu Youssou mu ngi jànge collège fii waaw kon as bëri naa ak Youssou Ndour waaw bëri naa ak Youssou Ndour champion Youssou Ndour def lépp waaw moom final bu rëy final bu rëy fii gunumaan fii man ak moom waaw mais nañ ñëw ci loolu mais ba léegi ci saison yi sa as sa biir carrière ban saison boo boo xam ne wax dëgg fa yàlla fa neex ko fàtte. saison bu ma duggee Falia. Mm-hmm. bu ma duggee Falia. Mm-hmm. amul lu ma deful foofu. Mm-hmm. Falia waaw ma bëri foofu deux demi final. ma war a finalu boobu man ak Jean Ernest ñoo ànd. ak euh, champion bu ñuy wax euh, André. Léopold André te mu dëkk Ngéej quoi. waaw ñu ñoo àndoon ak euh, Maxol. waaw waaw ñun ñett la woon. bu ñu demee ba foofu. waaw gars yi daanu ay premier tour yooyu man ma xuus ba demi final. bu ma demee ba demi-finale mhm. si lañ ma bëreloo ñaari demi-finale mhm. si la ñàkk làmb bi noonu mhm. waaw nga bëgg bëri waat waaw bëri woon waaw bëri noonu la dem waaw saison boobu daal moo la gën a marqué voilà moo ma gën a marke ma duggaat euh, ma xool euh, palmarin ngallu boobu sacros bi ngeen ni sacros bu ñuy wax ni kii naka euh, kamsa naka yaasaate boobu ñu ñoo nekkoon génération benn génération quoi donc ami du ñoom Sadio Diouf Sadio Sadio Ndama quoi dégg naa mu ngi Espagne léegi ak ñoom Lamine Thior waaw ñoom ñoo bokkoon génération waaw di ko jaanti foofu la waaw. mais est-ce que di ngay bëgg euh, mos nga am chance gagné nag wala. non instant boobu nag xaalis lañ doon tegal parce que bu nekkee poussière. Mhm. ay quinze mille lañ doon bëree quinze mille francs mhm. waaw. quinze mm-hmm. bu bëree vingt cinq mille mm-hmm. waaw instant yi pour nga dëgg dëgg dëggu nag sa day loolu day jafe day jafe day jafe waaw day jafe mm-hmm. dina doon am waaye day doon jafe waaw mais ba léegi bu ñu jógee ko euh, as ñu ñëw ci sa confrontation direct yi maanaam seen combat direct yi sànq nee nga bëri na gisuñu bu mat presque ay deux heures de temps wala que euh, as mën na ñëw ci combat boobu euh, combat yu sunduur man ak moom waaw dafa doon buñ tasee si làmb ji mhm. moom dafa doon euh, rey fa fale may rey fii mhm. muy rey fale may rey fii mhm. yaa ngi may dégg muy rey fii may rey fale yaa ngi may dégg ba ñu tase final waaw bu ñu tasee final nag mu yaakaar ne moom dafa war a ñëw ñoom gasmaane ñoo ko indi woon mu yaakaar ne dafa war a ñëw fekk ma foofu rek tax ma lu waa taxañ ma sànni ma fale waaw farnak yalla andul ak mom mhm. wa instant bobu nak mhm. bobu taxaw na nak parce mhm. que instant bobu gis nga isundur bobu mu ngi jang waye jang bi tukki wulon nonu quoi bobu mu ngi and ak ñom champion ñom gas ñom eh, gas ñom babakar ñom alizé wa mo ñu open compétition quoi wa ñu bëgg combat wa combat bu reuy wa mais kan moomu ñewon dan moomu jeun wala non non non non hmm. euh, dañ ko bayiwon fofu dañ ko bayiwon waaw dañ ko bayiwon fofu dañ ko bëre 4 heures de temps hmm. waaw ñu bayiko fofu hmm. waaw bu tirage amul avertissement amul waaw waaw après ngeen seddoo xaalis waaw waaw ñu seddoo xaalis ñu ko nekk am li nga war a xool ku nekk xaw ma trois mille cinq cent xaw ma quatre mille cinq cent <laughs> parce que lamb ji instant boobu boo leen bàyyi lamb boobu mm, mm. maanaam euh, lamb ji da si am wàll quoi mm. noonu la doon demee commission bi waaw commission bi quoi da si am wàll waaw mu nekk ñu divisé ko en trois waaw ñu divisé ko en trois waaw noonu la demee woon quoi waaw mais à part ñooñu euh, as sa biir carrière ngeen champion nga tasan nga nga nga bëgg bëri naag Georges moom Georges Mène waaw ngallu ma daan ko maxul deuxième deuxième tour jël bu gaaw. Mhm. waaw ñu dem ay at. Mhm. Euh, plus de cinq ans. Mhm. ñu tase fii final ngunu maan mu daan ma. mu daan la waaw. à ay ñoom ay ñoom ay tase naa Giraan. Giraan bu Ngéej. tamit am na ma 1-0. revanche boobu lay laaj nag. waaw bu ma amoon ñu ko tëgg nag. ah mm. ñu tëgal ma combat boobu ma ñëw noonu mm. saa ñu fay ma dara mm. waaw est que jaral na la jaral na ma ko jaral na ma ko même sama reliquat sax nañ ko ko jox waaw <laughs> wax naa ko ko keroog waaw waaw mais à part ñooñu gars yi say combat dëgg bi surtout côté Palmarin Palmarin parce que boo xoolee Palmarin bari woon ay mbër trop trop surtout boo duggee côté Ngallu bi ngéej ñoonu aussi kare euh, nga as ma si kaddu bi nag Lamine loolu lañ ko doon wooyee quoi maa ngi koy nuyoo dégg naa ne mu ngi Espagne léegi xaw ma Espagne xaw ma day daan navigué mm-hmm. waa bëri nañ deux fois mm-hmm. waaw yàlla natuma mu mm-hmm. daan ma deux fois waaw ak benn nii def nañ benn nii euh, ma ami du bëri nañ ngallu euh, mu daan ma ñu tase xaw ma fan est-ce que defuñu niil mu gàñ ma par tirage mm-hmm. waaw mm-hmm. waaw ak euh, sama yeneen dër bi daal mm-hmm. fii la quoi waa côté ndox bi la quoi que mën nga ñëw waaw dugg naa Falia dugg Jinda dugg ma xool Baasul dugg ma xool waaw foofu yëpp daf naa ko ay jàlloor waaw mais ba léegi ci ci ci côté boobu côté ndox bi yan champion nga nga bëgg foofu ñoo xam ne euh, est-ce que mën nga mën nga ñëw ci combat yooyu euh, ma xool euh, xam nga gars yi moom damay xante seen tur yi quoi hmm. waaw ay gars yu saf mun na bëre waaw ñoom ñu daan bëri waaw ñoom hmm. mais li gën a jaaxal adduna bi yëpp mooy seetlu nañu carrière bu askan wi dafa gàtt ñu bëgg ñu ngi koy ñaawlu ah nu mu demee noonu ak lu mu waxal carrière bu gàtt. waaw xam nga mbër champion boo nekkee si làmb mhm. di bëre. Mhm. day am benn moment. Mhm. maanaam da ngay arrière tuuti nga ne da ngay defarwaat. defarwaat boobu nag boo amulee boo boo boo kiiwulee tamit xam nga mun nga bàyyi quoi. noonu la demee waaw parce que sama bàyyi bi tamit daf ma bett quoi. waaye jëluma woon décision pour bàyyi quoi. waaw noonu la demee. waaw mais booy fàttali boobu sa sa sa ban mooy sa dernier euh, sama dernier lamb ngéej la woon ngéej. ngéej la waaw ngéej. ñaa kon wala yaa ko jël ma xool non non jëluma ko mm. ma xool troisième tour non non jogoy mooma daanoon jogoy mooma daanoon waaw jogoy mooma daanoon mm-hmm. waaw mm-hmm. kon as euh, bu ma comprendre bu baax daal euh, sa lamb daal jàppale bi dafa desul waaw xaw na des tuuti parce que xam nga comme ni ma la ko waxee rek mm-hmm. fii moom balaa ñu la jàppale moom xam nga foog nga jéem a xuusal sa bopp tuuti quoi waaw parce que lamb ji moom bëggoon nañ sport bi torop waaye dafa desoon ay rukurku yi quoi waaw mais bu nek as instant eh, bay na lamb ancien couloir sen sen lamb sen temps ak lamb bi noko gisse euh amna différence parce que lamb bi legui manam da ngay dan nga xam ku ngay tassel waye bu ñëk ba nak tirage mo leen di bolé da ngay dan fi ki di dan fi ñu def premier tour deuxième tour troisième tour waaw lamb bu mo gënon na metti ka lamb bi quoi waan mako gisse da mhm. waaw ba léegi eh, li nga xam ne solo as eh, ancien gulwaa nga nekkul ci làmb bàyyi làmb ñu gis ne tànn eh, ngurumaan bi nga dëkk plus précisément dafa xiif ay mbër dafa manqué ay mbër am na ay booy yi fiy jëm nag mais bëriwuñu yow est-ce que as en tant que ancien gulwaa jaar ci làmb am làmb est que boo amee temps wala sa yaram bu feexee est-ce que sa xam-xam bi nga am da ngay dem plage partage ak booy waaw loolu mun na am rek waaye xam nga jamono bi moom. Mhm. dañ koy bugg waaye xam nga temps bi mooy xaw a xat tuuti quoi. Mhm. te booy tamit euh, dañ ne neexuñoo oh, encadré quoi. Mhm. voilà da ngay dem foofu voilà surtout maa ñoom benn booy quoi. parfois ngay conseil booy sax defal nii defal nii mun la ah. grand bi lan la fi def. waaw bu munoon dina def. waaw loolu mooy problème bi quoi. waaye te lañ ko bën na gën a bëgg ko pour ñu encadré leen. parce que bëgg nañ ñu def loo xam ne maanaam euh, ñun ñi defuñu ko. si làmb waaw. te yéene baa ngi fi. te yéene baa ngi fi waaw. Mhm. mais ba léegi euh, Asfinia euh, gis na ne aussi euh, ancien boulevard bàyyi nga làmb aussi mais des fois dañuy gis lay yëngatu ci wàllum développement dëkk bi est-ce que comprendre te gis nañu booy nii ñu ngi joytu wax nañ am ay salle de musculation demee noonu yow en tant que ancien lutteur aussi te ngay yëngatu ci wàllum développement palmarès loolu aussi ban appel ngay lancer autorité wala bonne volonté nga xam ne ñoo nekk ci xam nga nu ma la ko mën a waxee kii. maa ngi ñaan autorité yëpp ñu nga xam ne cadre ay palmarin lañ euh, salle de musculation daf ñu manqué trop même boo bëriwulee sax maanaam comme sama genre yi ou bien sa genre yi mhm. wax parfois mun nga dem foofu yëngatu tuuti quoi waaye may lancer appel tamit si autorité yu mag yi mhm. ñu jéem loolu pour mu mun a am quoi mhm. déggoon naa ko fii ay atti nag waaye loolu xam nga antuwul waaw mais ba léegi as hmm, sa biir carrière noo doon waajalee say lamb est-ce que daaw nga di toog par exemple ni nga gerte lamb gis ko mu leer li nga tamit da ngay naam waaw am na benn lamb bu mu mosoo a gënt mhm. lamb ngéej la woon mhm. waaye comme nu ma la ko waxee mhm. lamb bu war a jeex tey maanaam bu dañ lay wax ne maanaam tey jii sa bés la mu wóor la ne drapeau bi ngay bëre nii bu jeexoon tey da nga koy jël waaye tamit boo leen fanaanee tamit boo leen bëree tey war a fanaan ba suba xam nga lamb kii mooy des voilà lamb sëriñ mooy des waaw ëpp ay moyens ku ëpp ay moyens rek xam nga muy loolu quoi. Mm-hmm. waaye dugg si ay lamb yoo xam ne. Mm-hmm. dugg naa lamb ngéej. Mm-hmm. Euh, ñu wóor mu wóor supporter yëpp ne. lamb bu jeexoon tey dama koy jël. bo pare naa lamb ji. waaye si ëllëg sa tamit xam nga nu ma la koy waxee rek. waaw parce que lamb jooju dama ko préparé lu mot euh, deux semaines mm-hmm. parce que wax nu ma la ko waxee rek ngéej sama sama kii la woon quoi waaw sama dëkk la woon quoi bëri fay supporter mm-hmm. lamb bu ñuy waaj a tëgg rek mm-hmm. maanaam sama supporter sax dañ may woo fu ma waroon a dem sax damay bàyyi foofu dem ngéej waaw kon boo ko comprendre lamb ngéej tey buñ koy waaj da ngay jëgal ay deux semaines wala une semaine ko dox mystiquement waaw kon xam naa ko gisoo sa sa bu bëjëm bi ngeej. yii boobu beneen la woon. boobu beneen la woon. dañ ma doon supporté mère di ma supporter. Mm-hmm. waaw ak uh, xale yi. Mm-hmm. waaw mm-hmm. loolu moom beneen la woon quoi beneen affaire la woon quoi. waaw. mais est ce que aspiria mu ngi seetaan lamb léegi. waaw bëreetuma lu may seetaan lamb. waaw dama koy dégg nii rek. waaw. mais des fois boo seetaan si lan est-ce que des fois euh, mu jugee sax waaw loolu moo tax nag mënatuma seetaan lamb ko parce que bu ma demee foofu di gis booy di lambatu fii di kii nii bañ a kii def ay action mm-hmm. tamit muy loolu di puusante foofu muy loolu quoi mm-hmm. waaw mm-hmm. parce que lamb yi léegi avertissement ngay gis foofu waa avertissement yi dañoo bëri te lamb yi léegi xam nga neexutal seetaan quoi parce que cinq minutes ñu met leen pause deux minutes ñu mayaat leen pause loolu du laa du bëre waaw waaye bu nekkoon ñun da ngay bëre lu mot quinze minutes ba vingt minutes ñu soog leen atte mais leen pause ngeen ñëwaat di reyante foofu ngeen bëri une heure de temps ñu bàyyi leen foofu rek waaw ba léegi ci côté làmb ji nga laal nii loo gis ne par exemple nii war nañ ko mën a changer wala ñuy defar wala ñuy yokk ci bënd ci côté lamb ji léegi. waaw xam nga làmb ji léegi moom xam nga changement bi rek. waaw ah, bu ñu waxee affaire CNG rek xam nga. Mhm. muy loolu quoi. Mhm. parce que làmb bi moom dañ ko orienté. Mhm. pour nga changer ko tamit dina jaxaw a jafe. parce que loo gis tamit dafay avancé. waaw loolu la quoi. mais ba léegi euh, as nga nekk ancien gloire ah biir palmarès monument fii ci booy aussi am na am na ñuy ñëw. Euh, as ñu ma gis ñi xam ne ñii ñii par exemple bu ñu leen encadré nii war nañ mën a nekk ay champion waaw comme booy na boy nii buñ mm. ko encadré moom mm-hmm. waaw war na mun a bëreem war na mun a weesu fii yëpp mm-hmm. waaw parce que am na taay bi am na doole mm-hmm. waaw waaw bu góorgóorloo tuuti rek tamit euh, mun na dem waaw ak aussi mu déggal grand mu déggal grand yi waaw parce que moom làmbatul làmb nijaayam yi dañ doon bëre ku mel ni duudu sulay waaw dañ doon bëre waaw dafa xool fekk làmb biir këram waaw bu góorgóorloo tuuti dégg conseil rek dina dem waaw ak yeneen booy yu may gis ay ñoom fambu ay ñoom Fodé eh, ak ñoom kii naka lañ koy waxatee yeneen booy waaw waaw gars yëpp buñ góorgóorloo daal mun nañ am dara si làmb ji kon as instant yii euh, lu euh, sama dernier moom mooy maanaam. dëmb dama am combat bu ma neex. Mhm. waaw si tali bi fii. Mhm. waaw man ak Camille. waaw. Mhm. combat bi nu mu demee. combat bi maanaam dañoo taxaw nii mu jëm ma kii tuuti mu ne jama jeexal quoi. dafa mm, tax ma daan ko si cinq secondes ma daan ko ñaari jël la. Ah. waaw ñaari jël la. ak am nii. ak mu am nii ma ne ko ñëwaatal. Ah. waaw. xanaa xanaa Kamil daf la may wala nu mu. Kamil mayu ma laajal booy booy fekkee nañ ko. Ah. fii fii fii fii si magasin bi fii. Mm, waaw waaw jël boobu moom a gën a neex. moo a gën a neex waaw. may méttilu nag am na benn jël la boo xam ne maanaam. Mm-hmm. Euh, Raymond Daba. Mm-hmm. daan na ma ko ba léegi dama koy méttilutu quoi. Mm. waaw kon war na la may revanche. waaw na ma may revanche. ah eh, gis mu ngi entraîné de. waaw mu ngi entraîné nag waaye maa ngi koy am 4-0. kat laa ko am mu am ma dee. Hmm. waaw kon yaa ko waaw muy kat dee waaw kon as looy tëjee waxtaan euh, di nuyu population bi di nuyu Zambro TV hmm. yow mi nga ma dalal hmm. ñu waxtaan affaire làmb quoi di bu yàggoon na ko bëgg si man quoi waaw yàlla tey la ko dugal waaw di encouragé booy nag ñu gëm a ñu góorgóorlu bu baax a baax a baax parce que làmb ji léegi alal la quoi teraanga kese la waaw ay millions des millions des millions góorgóorlu di entraîner. waaw di tëdd heure aussi di tëdd heure. parce que benn boy bi ñoo dégg naa tey nag bu tëdd heure. non du tëdd heure moom. Hmm, parce que mbër bu yeewu ay onze heures moom gëmuma hmm. parce que ñun dañ doon jóg cinq heures du dem entraîner ji. Hmm. waaw te rarement pour nga gis booy di def loolu. waaw. acca nii la tëddee ah. ah champion bu mag waaw champion bu mag xam ne kenn dootu ko présenté ci làmb. wallaahi léew nga ne Asperia moom lañ seesi woon ah. fas yéene wax waxtaan nag moom ci émission ci carrière wu làmbam aussi. maa ngi bëggee ñëpp di bëggee sama caméraman benn booy gars yi nee na nag del tëdd heure ah, wallaahi conseil wu yi benn booy ah nag xam nañ la bu baax instant yi gars yi mooy borom poussière yi gars yi nag nga respecté entraînement yi di tëdd heure maa ngi bëggee ñëpp di wax gars yi aussi bu leen di fàtte di abonné wu di partagé ñoo ngi bëggee ñëpp di leen ñu yoxaande bu beneen semaine ak beneen champion ok jaajëf